ala nabi wala di abdillah sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay habli maramiya yaa wahaabu doona anan wal takfini bi rasulillahi kulla bala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Futurs Médias ñi ngi dellusiwaat ci àjjuma ji ci seen émission bi nga xam ni mooy xew-xewu diine ji di jiital ci nuyoo beeg ziar bi sunu kilifa diine yi bu ñu tuddee fadilatu cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu cheikh Mahmoud Bachir mi nekk ci boppu njabootu cheikhul xadim gi yëpp ñaanal ko gudd fan gu ànd ak wér ak mucc dana mel na tudd nañu njabootu cheikhul xadim gi yëpp waaye dana mel na tudd nañu itam mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk tarixa suufi yi waaye dana mel na tudd nañu itam ñiy yëngu ci lislaam gi yëpp di leen dokkeel di leen ziyaar bu baax xam naa niñ daan nuyoo lii dal soxna Faat Bintu daf ñoo dal ñu nit ndax boobaak léegi wàllu xarala gi moom moo waral waxtu yu ñu waroon tàmbale daanaka lu mat fanweeri simili rëcc na ci kon ñu leb nuyoo bi bu alaaji ma kumba aan ñëwee incha allah dañu demal ci këru diine ji yëpp ndokkeel leen ziar leen xanaa rek di fàttali ni ko Seyda Fat Bintou waxe woon léegi ñu ngi waaj tàbbi ci weer wu màgg weer woo xam ni fukki fan yu njëkk yi ñoo gën ci at mi ndax fukki fan yooyu ci lañuy ñuy mottali suñu juróomeelu ponk lislaam muy dem baytullahil araam te xam ngeen ni loolu képp koo xam ni jullit nga te mën ko rek war na la ni la julli ware ni la koor ware ni la asaka ware kon fukki fan yooyu ñu waajal ko bu baax a baax incha allah buñ demee ci àjjuma bii ñu jëm daan ci gën a waxtaan bu baax a baax am mbégte nag dalal daara ji dama naan dalal daara ji ndax yenn ci daara yi nga xam ni ñu ngi ci réew mi di liggéey liggéey bu am solo ñu dippee ko koo xam ne dundam lépp da koo jeexal ci daara muy sëñ Ahmad Saxid Lo xam ne ba tey ji kooki yaakaar naa ne jaratul présenté ay ndongo génn fa ñëw fii ci ndakaaru fi nga xam ni fi la gën a jafee fi la gën a tare ñu taxawal fi daara joo xam ne moom lañ ko tuddee muy daara sëñ Ahmad Saxid Lo bu buun am doxin woo xam ni macha allah léegi rek laa naan leen daaw concours Sénico bi man sama candidat seen daara la jóge muy sëñ Babacar moom nga xam ni yaakaar naa ne moom mu joon jël troisième kon muy daara joo xam ni daañu jéem a jëkkanteeg waxtu wi gën leen xamaleeg daara ji waaye wax leen itam résultat yi nga xam ni moom la daara ji am ak ni daara ji dundee nag euh, ñeenti weer yi ndax xam ngeen ni ñeenti weer yi suñu borom moom moo wanewaat boppam moom mooy fàttaliwaat. jaam yëpp ni lépp mooma kon ma nuyu sama doom baay sëñ Abdoulahi Ñang nga xam ni mooy topp ca jëwriñ ja bu ko defee jox ko mu nuyoo bu noppee si El Hadji Malick Seck moom it bokk ci produit daara ji jànge ci daara ji mokkal ba tey jii bokk ca ñay jàngale ca daara ji kon sëñ Abdoulaye bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa wa barakaatu. salaam sallallahu alayhi wa sallam. sëñ Jili. gannaaw sant yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi lay nuyu. di eh, jox nuyu boobu itam nga jotali ñu ko si ñi yëngatu si kër gi yëpp. gannaaw loolu itam ñu ngi nuyu ñi ni seetaan. rawatina ñi nga xamante ni ñooy parents yi daara yi Ahmed Sakhir Lo bu buun. waaye itam ak soppay alquranul karim soppay daara Ahmed Sakhir Lo waaye mhm. itam di jagleel nuyoo waa daara Ahmed Sakhir Lo si boppam mhm. sa di sa jiital kilifa gi nga xamante ni si ndigalam la ñu ñëwee fii mhm. ak képp kuy yëngatu si daara ja yi ngi leen beral nuyoo bu baax a baax a baax a baax di la wax ni euh, ñi ngi ñëw si ndigalu dara am sax dara am sax incha allah jërëjëf sëñ Ablaye ñu ngi seen noonu sax image yu daara ji jërëjëf waa régie sëñ Jamil si ñu ngi koy sant bu baax di sant alaaji alaaji Vieux Diouf di sant euh, sëñ Babacar sëñ Am mi yor wàllu son bi ba ci sunu caméraman ni Demba ak sëñ Xaadim yëpp wax dëgg yàlla booba ak léegi ñu ngi ci pour ñu mën nu seetaan bu baax a baax mën a gis itam sama gan yu mag yi. Seydi El Hadj Malick ñu jox la nga nuyoo. waaw ah, euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, waaleykum salaam hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax. Hmm. Euh, di jaar fi suñu kilifa gi jaar. muy nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp émission bi waaye di nuyu waa Sénégal yëpp. si jiital kilifa diine yi. nga xam ne ñooy kennu diine ji fii si réew mi. Hmm. buñ ko waxee suñu xel dina dem si suñu maam ji. Cheikh Mouhamadul Muntaqa Bachir. Mm-hmm. suñu xel dina dem ci xadral malikiya al Cheikh Babacar Sy Mansour. Mm-hmm. suñu xel dina dem euh, Tiwa Kaolack. ci Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim. Mm-hmm. noonu ci fépp rek. xam nga comme noonu ngay mën a limee ñëpp. Euh, dëgg yàlla ñu ngi nuyu ñëpp. Uh-huh. di xamal ni seen tool lañ nekk. dëgg la wallaay seen tool lañ nekk ndax kilifa diine moom képp koy liggéey rek ci ñoom ñoom ngay xëyal. ñoom ngay gontalit. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jottali nuyoog sëñ bi di fa jaaree di eh, jaalewaat bu baax a baax waa Sénégal. Mm-hmm. ci kilifa yi mag yi nga xam ne ñoom lañ perdre ci fan yi mu ñu génn. Euh, suñ ko waxee suñu xel dina dem ci euh, alaaji Samba Diallo bu Sëñcu Ibrahim ndeysaan sëñ Sëñcu Bamba wallay euh, waaw kay mhm. suñu xel dina dem ci Pape Malick Sy nga xam ne mooy yoroon kaddu waa Tiwaawan suñu xel dina dem ci suñu waajur Cheikh Ahmed Tidiane Seck nga xam ne moo nekkoon xalifa ti ti sëñ Tafsir Sakho bu Tiwaawan daal ñu ngi ñëpp xalifa sëñ Omar xalifa sëñ Dem wallaay ñoom ñëpp rek ñi fi jege ñëpp ñu ngi leen ñëpp ñu ngi leen di jaan ba ci sunu mbokk sëñ Ahmadou Bamba Ndiaye Ahmad Bamba Ndiaye waaw moo xam ne wëllëre la woon ci daara ji wëllëre la woon ci daara wax dëgg yàlla loolu rek a ko ñoroon waaw jërëjëf mm-hmm. euh, Sidi El Hadj Malick kon euh, mm-hmm. ci tënk rek taarixu daara ji waaw historique gu daara waa sëñ Djili mm-hmm. ñu ngi rafetlu question boobu daara Ahmad Sakhir si tënk mi ngi nekk fële ci euh, buun buun nekk fële si buun Euh, ñu ngi ko sos 1995 le 25 mai 1995. ki ko sos itam yàlla jaarale ko si loxoom. ñu ko wooyee Mouhamed Baara Niang. sëñ Mouhamed Baara Niang euh, sëñ Mouhamed Baara Niang. ñu ngi tuddee daara ji euh, Cheikh Ahmed Sakhir Lo. nga xamante ni moom moo sañ ci daaray kokki. sëñ Ahmed Sakhir Lo moom ñaanal yàlla njëggal. ak yërmande anu ko yàlla si moom. amiin amiin waaye itam ñi nga xamante ni ñoom la bàyyee liggéey bi ñu koy wattu ba suñu jamono ji hmm. te sëñ naa loo nekk si bopp ba. Hmm, jàmbaar ak ñoom sëñ Fallou ñoom ñëpp yàlla na yàlla. wattu leen aar leen. amiin amiin euh, leen a jàppale. Hmm, amiin ku daara ji ñu ko tuddee si Ahmed Sakhir Lo. borom daara ji moom la ko tuddee ngir maanaam sopp gum ko sopp waaye itam. maanaam lott gum lott si delloo ko njukkal si xéewal gi nga xamante ni def na ko si moom bu mhm. ko defee daara Ahmed Sakhir Lo comme ni nga ko waxee mi ngi nekk fële buun jëkkewul mhm. nag foofu am na ay jaar-jaar bala moo ñëw foofu mhm. parce que jëkk naa jaar maanaam euh, buun ba léegi fa la jëkkee si beneen côté beneen quartier bu nuy wax quartier Moustapha Dieng léegi ba mu fa jógee dem na yëmbal jaar fa dem sam-sam Mm, ñi ngi gis ñu daara ji waaw mm-hmm. ba ba ba fii ñu nekk nii eh, mm-hmm. tey mm-hmm. ba fii ñu nekk nii tey yàlla def moom moo ko moomal boppam eh, daaraama saxiloo eh, fii mu nekk itam yaatu na fi mu nekk nii bu ma nee yaatu na moom mooy ni du benn bâtiment moom moo fa nekk waaye mi ngi commencé si ay benn néeg ñaari néeg ñetti néeg di yokk di yokk ba keroog ni mu ñëwee fii nii bu ko defee koo gis ni mu ñëw nii tey nga jàpp ni dafa tëb tëb rek mel noonu. Mhm. waaye dafa jaar si ay côté yu bari. Mhm. ba tey fii mu nekkee nii. Mhm. donte ba fii mu nekkee nii sax maanaam xat na. wallaay <laughs> wallaay euh, ko bëgg amoonu ko ba léegi. ñaan yàlla yàlla gën kaa yaatal. amiin amiin bari na ay doomi jullit ñoo xamante ni. ñi ngi taxaw soxla daara ji. waaye amuñu place boo xamante ni fa lañ mën a euh, dugg. ngi ñaan yàlla yàlla yaatal loolu. loolu dina feeñ ci journal bi. Hmm. bu ko defee euh, daara Massaxilo itam euh, dafa séddalikoo si ay ay pàcc-pàcc hmm. am na pàcc bu nga xamante ni moom mooy cosaan li ñu koy wax màkkatal mu karam hmm. est-ce que noonu lañ euh, si pàcc boobu itam ñetti pàcc yi si topp yi foofu doon bàyyee ko maanaam bisa bi si ñaareelu pàcc mooy wax a war yàlla nattoonu ñu ñu jiite ko boobu depuis 2004 macha allah am na beneen pàcc itam bu ñuy wax Daaru Arqam. Mhm. Euh, ku ñuy wax Ibrahima Kébé. moom moo nekk si bopp ba. Mhm. Euh, euh, itam nekk ngi nekk 2018 yaakaar naa doon ko sos. Mhm. am na beneen pàcc itam boo xamante ni maanaam côté jigéen ñi ñoom ñoo fa nekk. ñoom itam yooyu yëpp ñu ngi bàyyeekoo si daara ju mag ji. internat da ci am dafa am internat am externat ñëpp internat la. ah ñëpp internat la waaye xam nga bu njëkkoon ñëpp ñu ngi nekkoon màkk. waaye yàlla def ñuy. paaxaaj daara ji noonu. ba mu am maanaam ñeenti front yooyu mm-hmm. waaye nag lépp benn la mm-hmm. maanaam ñoo bokk kilifa ga benn la programme bi programme bi benn la mm-hmm. ñoo jóganoo defandoo yëpp daal incha allah programme bi waaye rek ñoo wute daal waaw programme bi daan ci ñëw léegi waa daara noonu la baaxoo di tàmbalee ci lu sew di yokk ndax euh, moom rek kay dëgg te alxuraan sunu borom moo ko sàmmal boppam man si doole rek mooy franco arabe bi waaw ñi nga xamante ni yàlla def nañu mokkal ko karim ñoom foofu dañuy dem yéen a ngi jéegal seen jàng waaw incha allah sunu mbokku daan ci ñëw waaw bu ñëwee ci programme bi ndax daan ñëw ci programme mu njàng meeg yooyu yëpp. ak euh, li ëpp ci ndongo yi ñaata at lan fay def euh, yàlla wërsëga leen ndax wërsëg la itam. Mm-hmm. du ñëpp ñoo am wërsëgu wattu euh, alxuraanul karim. Mm-hmm. loolu yëpp incha allah daan ci ñëw. si El Hadj Malick ñu toll ci contexte bu doy waar muy jamono ji muy Covid 2019 bi di ci ñaar sunu bopp. Mm-hmm. di ci soñu ñëpp nit ñi gën a farlu ci respecter barrières yi dëgg la mbirum sunu borom la te li Cheikh Xadim waxoon ni adul war nax fa minal rahmaani laysa minal bidaani wa sudaani moom loolu lu wér la waaye nag euh, nit ki day fagaru itam li wolof di wax naan fagaroo gën faju kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp di soñ ñëpp contexte boobu nan la ko daara ji dundee waaw Alaaji Baay Jili ñu dellu nuyuwaat leen hmm. Euh, contexte bi comme ni ñu ko xamee euh, mas mbas mi dugg na le 2 mars fii ci Sénégal. Mhm. ginnaaw ba nga xamee doon nañ ko dégg ci ay réew. Mhm. ba mu dugg see nag euh, li yàlla jàngale yàlla dinaa mën a xudu xidrakum. ma mhm. ne ngeen di jël seen i matuwaay ci lu mu mënti doon. wante ci cadre xare la wàcc mais ci lu mu mënti doon dañ ko fay mën a contextualiser. Euh, yonent bi ndax boobu looloo lool ndax boobu looloo xewoon mm. waaye tamit bu ñëwee ci beneen wàll yi li mm. xew rek lu nekk dëgg la wallaahi euh, yàlla day digle pour ñu jël suñuy matuwaay mm-hmm. donc lu ba loolu amee léegi euh, daara ji ba ba mbas mi dugg mm-hmm. dañoo woote benn assemblée général boo xam ni mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne dañuy intervenir ci biir daara ji teewee nañ ko léegi nag ci boobaa ci booba lañ jël ay matuwaay booba lañ jël ay xaraaraat ay matuwaay yoo xam ni ci lañ ko appliqué ci daara ji bi si jiitu comme feebar bi mhm. li ñuy wax doxul nit a koy yóbbu mhm. booba ci la daara ji ni woon kon léegi ku nekk na toog fa mu nekk su mhm. fekkee waajur bi na toog bañ a ñëwati seet si doomam mu doon lu métti lool waaye ñu koy jégalu waajur yi te xam ni jamono ko laaj programme bi dafa amoon bés yoo xam ne ci la waajur yi di ñëw waaw kay waaw comme internat la amoon na chaque de mois waajur yi dañuy ñëw mën a def dañuy def benn nga xam ni waajur yi dinañ ñëw gis ci seen i doom indaale leen ay uh, li ñuy soxla li nit di soxla ci dëwaay ak yu mel noonu mm-hmm. waaye boobu nag ñu arrêté ko mm-hmm. uh, noonu tamit ci côté uh, liggéeykat yi mm-hmm. nga xam ne ay liggéeykat lañu woon mais dañ daan faral di wàcc di ñibbi ndax la gaa am na ci ay jàngalekat ak i yarkat yoo xam ne ci biir daal di ñuy nekk mais am na ci ñeneen ñoo xam ne que ça soit dañuy faral di wàcc di ñibbi ndax seen liggéey loolu la laaj Mm-hmm. ñooñu it euh, ñu arrêté ñu arrêté leen. Mm-hmm. comme ni nga xam ni noonu la ko état bi diglee woon. Mm-hmm. nga xam ni moom la ñu warale woon ak ñoom ci wàllu weer bu dee it euh, ji continué woon. di ko di leen di leen ko kii. Euh, noonu daal lañ ko jàppee woon ba nga xam ni jël nañ ci ay matuwaay yu mat. léegi ba matuwaay yooyu amee nag léegi liy des mooy comme ñun nag ay internet la woon naka jekk dañoo confiné wu woon. léegi confinement bi dafa gën a dafay gën a matale rek. dëgg la ba ci loolu la ñu continué. liggéey bi ci biir daara ji ba yàlla joxe résultat yi nga xam ni moom la joxe neexee ren. macha allah muy 118 yi nga xam ne ñoom ñoo wattu alxuraan ren eh, ren ci ci at bi. donc daal contexte la certainement bu jafe la certainement euh, waaye dafa mel ni euh, waaw kay moom <laughs> li arab di leen ni maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu. wallaay loo mënta jot lépp bul bàyyi lépp yi. dëgg la waaye jëlal li nga mën a jël rek. incha allah la des nga ba moom it ci noonu lañ fexee daal am lu hmm. bëri loo xam ni profité nañ ko ci contexte bi. macha allah ba yàlla def tawfiix. jërëjëf daan ci ñëw léegi daan ci ñëwaat bu baax a baax. Hmm. Euh, sëñ Ablaye. Hmm. kon noonu la ko daara ji dundee euh, programme daara ji ndax ci biir euh, Covid bi fexe nañu ba am ci résultat bi mu junj léegi téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñett ñoo xam ni yàlla wërsëgal na leen euh, alxuraan ci seen dënn. Mhm. programme mu daara ji nan la programme yi tëddee ba résultat bu mel noonu mën am. alhamdulilah programme bi moom la fi nekkoon même bi Covid bi ñëwee itam. Mhm. loolu doon continuer nekk si rek. xanaa mhm. ah, dañ si profité comme ni ko. sëñ Asu waxee mhm. moom mooy masawu waajur yi mhm. waaye dem jaajëfal leen si mhm. wóolu gin wóolu daal am Saxiir Lo doyloo gin doyloo suñu borom parce que bi nga xam mbir mi am na li daara ji tëral yëpp dañ see ànd ànd ñoom loolu nag bu si àndu woon ñoom xañ na tey mën naa am effet si si résultat yi waaye danoo nangoo bàyyee ñoo xale yi bàyyi juróomi weer yoo xamante ni ba léegi nii am na maanaam waajur kenn tegu sa. sa eh, gisu sa doom. ndeysaan te ñoo xam ne ñaari weer yu nekk daan nañ leen gis. ñu bàyyee ñoo xale yi. Mhm. Eh, ñu nekk ak ñoom. Mhm. foofu itam si biir programme boobu tam itam. Mhm. Eh, dinañ si jaajëfal donte moom xañ na lu muy bëgg. nañ si jaajafal uh, borom daara ci muy sëñ Mouhamadou Niang parce que maanaam itam loolu bu amee moom daf si joué bu rëy macha allah wallaahi bu rëy boobu mooy premièrement hmm. mooy bi affaire bi amee itam hmm. maanaam doonte daana futteeku sax nekk si liggéey waaye daa gën a futteeku wat ndeysaan waaye itam futteeku wat waaye futti poosam itam hmm. parce que lu bari loo xamante ni xam na waajur yi doon nañ si jàppale xale yi moom dafa futteeku pour pour pour def ko pour def ko loolu may na xale yi ñoom ñu gën a am dal. Mhm. maanaam lool may na xale yi tam feeñul si ñoom. ñàkk ñàkk gis seen waajur yi amul jeexital amul benn jeexital si njàng mi. parce que man mi si wàllu njàng laa nekk. Mhm. comme ma ko waxee war na si xam dara dëgg la waaw loolu nag so maanaam ak soññ gu rëy la goo xamante ni. Mhm. def na ko si côté liggéeykat yi nekkoon a xale yi. waaye def na ko dem si côté xale yi. ba loolu dimbali nu alhamdulilah. ba résultat yi daara ji am ren. si ñu mokkal. Mm-hmm. c'est la première fois mu am ko sama mooy cent dix-huit ñoo xamante ni mokk nan alxuraan loolu itam euh, maanaam kimtaanu borom gi moom moo siy feeñ ala mm-hmm. na ni yenn saa yi xale yi ma daan yenn saa yi ma téyel xale mm-hmm. di ko téyel ba mu nekk si diggante euh, li ñuy wax gëndale maanaam di bëgg a dem pour ñu xool ko ndax mokkal na mais ngay xool koo xamante ni dina mën a tari baqara minal jinnati wa naas mm. nga xool xool xool doo gis gag doo gis yàq yenn saa da lay yéem ba pare day fekk mu nekk xale bu tuuti nga xoolaat rek ni lii day dëggal la yàlla doon wax na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun maanaam tey fi mu ne nii 118 ñu mokkal alxuraan tey mm-hmm, mm-hmm. te tey fi mu ne nii kii nii ni ko daara Ahmed Sakhirou génnee tey mm-hmm. tey yeneen daara yi baree baree baree baree tey bu amulu toll noonu itam dañ ko jigéen waaw loolu lépp nekk ndamu Sénégal maanaam loolu lépp nekk ndamu Sénégal kon programme bi depuis que léegi nu ñuy jàngee nu ñuy jàngee ba mën a ba mën a am résultat yooyu. nan yan waxtu la ñuy jàng ak. système beeg yooyu. daara moom programme bi mm-hmm. oyoful. Mm-hmm. waaw programme moom oyoful. alxuraan mënut a oyof. waaw waaw programme boo seetloo waaw premièrement alxuraan. <laughs> wallaay moom kii bi. wallaay wallaay yàlla ma ko jox yonent bi dana ko innaa sanulqii alayka qawlan saqiila. wallaay wallaay wallaay daal daara ja quatre moom bu nu ko yeewoo. Mm-hmm. si téere bi la nekk. ba huit heures ndékki jot. ñu pause ndékki. Eh, nekkaas yi ba midi jot. ñu wàcc añ noppaliku ba trois heures ñu nekkaat si ba six heures wàcc noppaliku ba tibis ñu julli buñ jullee ba pare xale yi reer ñu nekkaat si benn waxtu door a dem noppaliku waaw waaw dinaa la ñuy nekk ba yàlla génn si résultat yi si tënk daal macha euh, allah daan ci daanu ñëwaat euh, sëñ Abdoulaye euh, sëñ programme bi mel na ni ni ko sëñ Ablaye waxee yamul rek ci ñàngum alxuraan xale yi bu nu jàngee ba noppi am na yeneen fànn itam yu nuy jàng ndax daara ji am na franco arabe waaw ah, bu ko defee programme boobu nan la tëddee ak xale yi ci ban fu ñuy toll ci alxuraanul karim soga dugg ci franco arabe bi ak loolu résultat bi waaw euh, daara ji comme niñ ko xamee mm-hmm. euh, ñaari parti la Mm-hmm. suñ ko waxee ci côté jàngin lañ ci nam mm-hmm. première partie bi mooy fi nongole di doog a ñëwee mm-hmm. su boobaa moom dañ koy bàyyi rek mu jàng alquran ba wattu ko ndax alquran moom ni ko xamee ak diisaayam foo ko naree boolee ki yeneen boobaa mën naa am diir bi nga ci war a def mu gën a bëri mu gën a bëri euh, su boobaa nag dañuy xaw a aménager ba nga xam ni xale bi moom al alquran ji lay nekk léegi nag bu demee ba wattu ko euh, ci lay doog a dem euh, rejoindre ci lay doog a yegg ci franco arab bi bu demee ci franco arabe bi nag euh, franco arabe bu kii la programme yi ñu fay jàngale mooy programme yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci réew mi. ci état état wu Sénégal euh, tëral ko. Mm-hmm. ñetti maraaxil muy ñetti étape yëpp mi fa ñetti cycle yëpp primaire secondaire moyenne comme secondaire. macha allah ba niveau bac daal. ba niveau bac waaw. ba niveau bac. Mhm. trois langues yëpp aussi dañ ko fay jàng. arabe ah. bi nga xam ne mooy langue de base bi. anglais français am na aussi tamit euh, beneen partie boo xam ne loolu moom mun naa am bonus lay nekk si ñun muy partie informatique bi nga xam ni. Mhm. Euh, xale yi tamit dañ koy dañ kii bu baax booy xool journal bi. ndax mënatul ñàkk. waaw waaw mënta mënta ñàkk euh, comme ni xamee daara. Euh, dañuy faral di wax ni daara daara moderne mais ñi dañoo gëm ni daara dafa musa moderne wallaay wallaay daara moom daa même ba muy nekk ca kaw ga mhm. dañ daan dund ak li nit ñi di dundee rek la daara musa dundee euh, ba ñëwee ba ci taax bi it xam taax dëkk yi nit ñi nit dëkkee ci mhm. taax bi soo demee ci daara yi noonu la ñuy dëkkee ci taax yi mhm. jàngin bi it noonu lañ koy jéem a ba nga xam ni euh, day moderne ba tax ba da ngay gis koo xam ne ci daara ji la génne tey ji am na ci ki nga xam ne moo jiite ñi génne ci daara ji yëpp ab imam la biir Dubai Euh, imam la biir Dubaï. te day liggéey ci seen ministères yi ci côté informatique. macha allah day ay données la fay liggéey. Mhm. donc mu wan ni. Euh, nit produit yi daara. Hmm. mën naa bañ a yem rek ci jàngum alquran. Hmm, euh, tey te produit yi ñun ñii am nañ ci kenn ndax euh, ñu ngi may wax léegi oustaz Modou Fall. waaw Modou Fall waaw ci daara jële génne ci daara jële génne oustaz bu baax a baax. <laughs> di la ndokkeel ci bés bi nga xam ni sa ay sa ay sa ay bokki daara <laughs> lañ daara la waaw. fekkente nañ daara ja. ndeysaan oh, fekkente ngeen waaw ñoo bokkoon nekk daara ja. ndeysaan donc daal lool moom mooy produit yi daara. Hmm. donc nag léegi du yem ci alquran rek jàng alquran wattu ko lu am solo la. Mm-hmm. lu am njëriñ la ci jullit bi. Mm-hmm. waaye it ak xam-xam yi koy gunge. Mm-hmm. Euh, mu ànd ci. ndax alquran ba muy wàcc. yàlla subhanahu wa taala daf koo def muy contextuali muy ànd ak contexte yi wala yatuunaka bi mathalin illaa ji'naaka bil haqqi wa ahsana tafsira loolu day wan ni rek alquran chaque jour dafa war a dund jamono bu nekk dana ko dafa war a a dafa war a ànd ak moom nag lépp li nga xam ne jamono laaj na ko su boobaa dañ ciy encadré xale bi ba nga xam ne léegi bu génnee foofu tey su ñi génnee ci daara ji am na ci ñoo xam ne ñi ngi Turquie mhm. médecine la ñuy jàng mhm. am na ci ñoo xam ne ñi ngi Maroc mhm. info côté informatique bi la ñuy continuer seen jàng waaw ngi gis salle informatique yi fii ci journal bi benn centre informatique salle multimédia yi waaw ah, ok bu mag la donc daal loolu moom mooy partie bi nga xam ne moom moo aju ci côté tafsir Banda Niang bi programme yi nga xam ne moom la état bi di jàngale di ci école yëpp Mm-hmm. am na fa en plus nag li nga xam ni moom secret ndongo daara lay doon du tàqalikoog moom mukk mm-hmm. <laughs> te mooy li nga xam ni bonus la koy am euh, par rapport ak yeneen yu kii muy côté informatique bi ak mm-hmm. yeneen côté yi nga xam ni dañ leen ci dañ leen ci di former di leen ci di leen ci tàggat macha allah loolu parti Tafsir Banda Niang allah macha allah sëñ El Hadj Malick euh, sëñ Ablaye contexte bu doy waar la dund nii ba daara ji am résultat bi nga xam ni Euh, am na ko. Euh, sant nga léegi waajuru ndongo yi itam nga xam ni ñoom ñoo leen jàppale fekk si leen. ci sart yi ngeen tëral ba ba loolu am. fi mu toll nii daara ji am na ay projet ndax loo xam ne ci benn bërëb bu ndaw la tàmbalee woon tey jii mu yegg ci immeuble yi nga xam ni euh, nekk na fa. ni nga ko waxee Màkka am dina am ak yeneen bërëbu franco arabe ak yooyu yëpp waaye daara ji fasul yéene taxaw foofu. Hmm. li ñu dese barewul mais lan mooy mébétu daara ji si at yi nu jëm. alhamdulilah euh, sëñ Jili. Hmm. daara ji moom ay mébétam bari na. Hmm. waaye yëpp génnul cadre nan la ñuy def nan lay def ba jubluwaay ba taxoon pour mu sos daara ji. jubluwaay yooyu mu sotal ko. mu dafa lu taxoon jubluwaay yu taxoon boroom daara ji sos daara ji mhm. sa bokk na si jubluwaay yooyu jiima tasaare alquran si doomu jullit ñi. si mhm. Sénégal ak dugal mhm. Sénégal ak si biti waaye itam sa jiima changé déggi nuy ñaaw yi nga xamante ni tey nit ñi amoon nañ ko si daara bu njëkk loolu bokk na si jubluwaay te fi mu ne nii tey daara ja wax dëgg yàlla alhamdulilah ñu bari ñi ngi taxaw maanaam bëgg dugal seenu njaboot foofu Mm-hmm. am na ñu dugg ba pare am na ñoo xamante ni amaguñu place. Mm-hmm. kon mébétam maanaam euh, kii yem projet bi gën a mag fi mu ne nii. Mm-hmm. mooy nu muy def ba am dëkkuwaay yu gën a mucc ayib. waaye yaatu yoo xamante ni tey. maanaam lépp loo xamante ni tey maanaam euh, euh, doomu jullit dina ko soxla si jamono ji tey. mën ko fekk dina ko mën a fekk foofu. léegi loolu xañ na moom moom laa gis waaw muy ah, maquette projet complexe du daara bokk bi gën a mag laa gis nii moom laa ah, gis nii bi bi bi bi gën a rëy moo nekk nii ah, xam naa loolu moom hmm. euh, incha allah ku si jokkoo daara ji rek incha allah nga si gën a xam dara incha allah moom it ba ci bërëb ba lay nekk waaw xam naa ndax xaj na fa waaw li ma jàpp moom mooy ni bés ko mën a am foofu de hmm. loolu moom mooy li gënal boroom daara ci hmm. waaw waaye nag xam nga kuy kuy ñaan moom doo doo. waaw doo waaw doo tam waaw moom daal na am rek. daal na am incha allah waaw. waaye nag bu amee foofu itam day day day a liggéey bi day gën a yombal liggéey bi. xam mhm. nga euh, si côté école bi. Mhm. am na euh, maa ngi jëfal si jaajëfal sëñ as si côté kii bi si côté résultat yi itam si côté école bi. Mhm. am na ay classes yu def examen. waaye jamono yee passé Covid bi am na maanaam arrêté woon na programme njàng mi. waaye ñu ne alhamdulilah. yàlla war wërsëgaloon na daara ji ay matuwaay si côté euh, ma matuwaay yoo xam ne mën a jàng. diraas en bond. loolu dimbali woon na ba nga xamante ni euh, asatis yi doon nañ continuer di jox. ñi war a def examen doon ne leen jàngal. Hmm. si côté internet bi maanaam seen i durus daal doon na continuer. macha allah ba léegi alhamdulilah fi mu ne nii ñoom. ñu ngi seen programme jeexal nañu ko. macha allah léegi dañuy programme toog di xaar euh, euh, na ko sunu borom. Uh-huh. ya sunu borom defal nañu ko. macha euh, di ko si sant bu baax a baax a baax a baax. macha allah xam naa itam xam naa balaa kàddu gi ñëwal ma profité si waaw xam na incha allah itam ñu ngi woo daara Ahmed Sakhilo. Hmm. que xam nga daanaan am chaque année xafla. Hmm. mais xafla bi Euh, li li li wokk ndaje diine mm, yëpp. moom moo ko moo a xori. Mm, mm. loolu tax xabla gi mbokk yi mooy euh, conférence bi nga xam ne at mu nekk daara ji. da koy organiser wane promotion bi. wane ñi fa génn. waaw léegi loolu itam dañu ko doon def. Mm-hmm. ngir gën a maanaam kontaan loo ñi mokkal alxuraan. wallaay bégal seen bégal leen dara jàng alxuraan waaw yu mel noonu. i waajur itam bég ci ndax yóbbu sa doom yàlla wërsëgale ma mokkal alxuraan lu taw féexal. xam ne loolu ren nag du mën a nekk. Mm-hmm. waaye ñii mokk ren defaloon nañ leen benn cérémonie. bu mm-hmm. ndaw gis naa ko ngir kontaanoo leen. gis naa ko jombul sax Jamil dana ko xool cérémonie bi mun ko jàlle mais waajur yi tam bu ñu di jàll waaw incha allah def nañ ko si ay ay kale ay ñëw ñu jox la ko jokkoo ak waa bureau bi allah di nga si mën a jot bu lool bu ñu duggee sax ci internet youtube bi dem ko ciy gis waaw kay nañ ko mën am mm-hmm. ko mën a am bu ko defee itam léegi xale yi si conférence boobu lañ leen doon joxe waaye ba nañu ñëw foofu ñi ngi masaw itam soppee daaraamee sax iloo soppee alxuraan parce que xafla bi mm-hmm. am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla maanaam ñi xam maanaam seenu bëgg alxuraan fi mu too fi mu leen toll woon tax na. Mhm. lu bari la xaafle bi jaraloon. wallaay wallaay daaw ñu ko manqué wallaay si kii bi ngir rek bëgg a jël en place. ñooñu mhm. ñëpp leen di masaw. Mhm. di ñaan yàlla mu fay leen seen yéene. Euh, xam ni euh, ni la ko yàlla bëggee. suñu borom moom moo dëgale noonu atum ren bi. bu ko defee xale yi dañ leen doon joxee si xafla bi. waaye xam ne loolu ren du mën a nekk. bu ko defee suba. incha allah di samedi. incha allah léegi lañ jagleel. képp ku dëkk Dakar. léegi. lan bëgg bu subaa nga jël si sa doom. nga ñëw jël si boo koy jël si yow kese nga ñëw. Mm-hmm. boo mënul ñëw nga yeble. Mm-hmm. mais nag kenn ñëw. Mm-hmm. bu ko defee ngir daw dajaloo bi nga xamante ni kilifa yi ñu ngi koy mbooloo mi di fa dajewaat te ñu ngi koy moytu waaw. bu ko defee diggante bi huit heures lay nekk. ba midi et demi. ali ko commencé trois heures. ba six heures. diggante boobu képp ku ñëw di jël si ku jëkk Dakar yi incha allah. dinañ la jox sa doom ñu ñu ñaan waajur itam ñu respecté ko. Euh, bu ko defee ñu ñëw si Euh, di heure boobu ñu soxla daal. suba incha allah suba bu dee dimanche bi. waaw ñu ko jagleel ñi nga xam ñoom ñoo dëkk ces régions yi. Mhm. maanaam di jóge fi sori di jóge fi sori. Mhm. ñoom ñoom ñoom dimanche ñëw. Mhm. bu dee heure bi moom ñoom ñoo ko bokkale. bu ko defee itam ñi ngi ñaan kuy ñëw itam. nga sàmmanteeg mesures yi nga xamante ni. état bi mi ngi koy sàkku si askan wi. Mhm. bu ko defee loolu itam ñu bàyyi xel sa ku ñëw itam. Mhm. bu ñëwee bu la joxee sa doom rek incha allah. Mhm. nga yeewee ko ndànk rek euh, bañ a andi lu nuroo dajaloo foofu daal. incha allah salaamaaleykum jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye euh, sëñ Sidi Lamine fi ñuy jeexalee xam naa bëggoon naa ñu ñëw tuuti ci résultat bi ñuy am ci ndax ndax ndax liñ naan alxuraan. boo ci jàppee ba ñenn ñi jàpp ni tardé nga di nga dabe looloo waral muy certificat di BFM di bag nitu daara yi yu bëree bare dañ koy def ci diir bu gàtt ba noppi bokk ci itam ca ña ca raw loolu daara ji nan la ci demee dafa am benn mag bu doon melal nongo daara. Uh-huh. ak keneen ki nga xam ni dafa nekk ci beneen wàll bi. Uh-huh. mu ne dafa mel ni ñaari bët rek. Uh-huh. boo tafee benn bi ni bàyyi benn bi ni ko xoolal. nee na diir bi lu mu yàgg yàgg boo tafee boo bàyyi beneen bi. <laughs> <laughs> mu dab ko ñu bokk gis wallaay wallaay <laughs> ko ci saa si la ko doon misaale. mu ni kon diir bi def ci daara ji. sëgg ci hmm. alxuraan bi bul jàpp ni mukk pertement la. dëgg la ba yaa ngi gañe loo xam ne keneen ki du ko gañe. ci lu wér mooy eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo génn ci daara ji. Hmm. ci ñuy def bac ma jël niveau bac bi nga xam ni presque mooy terminal bi mhm. euh, da ngay gis ni euh, âge moyenne bi dañuy defee bac daaw comme daaw mooy kii bi ki jëloon mhm. première ci mhm. centre bi nga xam ne moom la defee mu nekk centre Kër Massar bi gën a mag foofu ci daara ja la bayee ko macha allah bal sax siis yëpp ci daara ja lañ bayee ko siis yi jiitu woon ah, yëpp alxuraan ngoog ci daara ji lañ bayee mais kooku 17 ans la amoon ci def loolu xam nga 17 ans mooy âge moyen bi nga xam ni ci Sénégal moom lañ miin di defee di defee bac mhm. bal sax des fois daf koy yées mhm. des fois nga gis ko te wattu na alxuraan day wattu alxuraan en plus mhm. ah, kon moom am na am na ay gagnants yu bëri maanaam wattu na alxuraan par rapport ak yeneen moroomam mais côté jàng ak côté xel. dina ci mhm. am loo xam ne mën naa am devancer ñeneen ñi nga xam ne moom la bokk. Mhm. pour wax rek ni. Mhm. Euh, ñu ngi ciy am solo daal da nga ci am résultats yu am solo. loolu benn benn wàll bi la beneen wàll bi mooy. daar ji daf ciy def ay ji ay jéego. mooy moom dina jéem aménage naka lay def. ba nga xam ni xale bi du tardé ci côté âge bi. su fekkee âge bi ñuy jël nga xam ni sept la. dañu commencé su fekkee xale bi dafa ñëw foofu. Euh, du ñu faral di natt nag ndax al alxuraan moom yàllaa koy maye te mooy xool diir wallaay wallaay wallaay waaye booy xoolee la plupart hmm. trois ans la nit ñi di gën a jaaral di faral di mokkalee alxuraan hmm. léegi su fekkee loolu am fukki at waaw kay fekk day fekk mu euh, fukki at hmm. léegi su fekkee loolu léegi su ñëwee ci école bi euh, cycle primaire primaire bi école yi dañ koy def six ans mais ñun dañ koy def à quatre ans macha allah donc da ngay gagné deux am nga deux ans yow kay ndax xale bi su nekkee ci biir daara ji mhm. am na phase yi nga xam ne phase initiale la waaw da ngay xale bi ci lecture yu mel mhm. noonu mhm. kooku dootu ko soxlaati ndax mënoon na ko ba wattu alxuraan mën na ko ba noppi waaw kon am na âge yoo xam ne kon dina ko mën a dina a gagné su ñëwaatee cycle bi nga xam ni mooy moyenne bi foofu au lieu de quatre ans c'est trois ans donc dangay gis ni trois ans yi nga xam ni moom lay def ci alquran bi mun na ko rattraper ci fii ci biir école bi mhm. en plus loolu it yàlla dina leen may xel ba nga xam ni mhm. ñu si bëri dinañ faral di mën a mhm. jéggi jéggi classe waaw nax li gën a jafe ci wàllum njàng mooy wattu ah, waaw waaw te lii moom am na ko fii ba noppi waaw am na maanaam koo xam ne dañ lay jox dar su sumun wala ñu jox la rubo des fois nga gis ko ëppal nga ñëw ñu jox la ab leçon boo xam ni mën naa am xaaj matul xaaju page wallaay day day yomb day yomb lool day yomb wallaay loolu loolu ko ndax booy seet fi ñu toll nii uh-huh. programme primaire nga boole ci secondaire ba ba daanaka deuxième année wala troisième wala licence uh-huh. boo boolee programme bi boobu yëpp li ngay jàng vieux Diouf ak leçon yeeg yëpp du <laughs> alxuraan ak ëpp. xam nga léegi ki wattu alxuraan kon kon programme boobu moom dootu ko jaaxal. am na loo xam ne balaa ñuy tàggatoo gis naa ko ci liggéey bi. mu mel na lu mel na activité génératrice de revenu yi nga xam ne lu mel na ay. wàllu mbay ak boulangerie bi ak yooyu. loolu de moom xam naa moom it ay kii la ci daara ji. mooy modernité bi ñuy bi ñuy wax. macha allah cest à euh, daara noonu la baaxoo comme ni ma ko leeralee sànq. Mm-hmm. maanaam tey boo xoolee suñu maam yi day accompagner daara day accompagner mm-hmm. boo xoolee suñu maam yi jamono ji nga xam ne ñoo gënoon a féetewoo wàllum Sénégal mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo nekkoon suñu maam yi féete woon ci daara ja nga xam ne mm-hmm. dañuy dem ba àll ba àll nand fay fay nañ koy waxee def fa tool def fab tool def fab daara nga xam ni am na suñu benn way jur Sazan Aliou Guèye noonu la ko doon ke jàkka ja jaar ga xaw ma am na ñetti jiim yi mu ko doon faral di. di di ngay waajulu sëñ Moussa Gueye yaakaar naa ah, voilà macha allah ñu ngi ziar imam sëñ Moussa. loolu noonu la koy noonu la ko hmm. doon kiiwee pour wane ni. daara moom noonu la mës a kii maanaam day participer chaque jour. Mhm. ci euh, acte de développement développement moo xam mhm. développement économique wala mhm. développement social et culturel. nitu daara yi ñooy acteur de développement yi sax. noonu rôle boobu nga xam ne moom la daara di yàgg a société. moom ba ñëwee fii daf koo moderniser. soo ñëwee ci dëkku taax. xam nga ni dinañ soxla la plupart ay boulangerie. ndax Sénégal moom ku xëy ndekkeewu mburu day daara ji da koy yittewoo. waaw kay te daara ji daf koy yittewoo lu bëri. loolu tax mburu ndax daara ñi ngi toll ci 2000 personnes euh, donc li muy soxla ci mburu dina bëri lool mhm. su fekkoo da nga a chaque jour nga dem jëndi ko dina xaw a kii léegi mhm. daara ji moom taxawal boulanger boo xam ne moo koy livrer chaque jour mhm. ba pare nag dem di servir feneen ngir daara ji ci yeexantu noonu it ci la amee benn euh, tool boo xam ni ci lay faral légumes yi muy soxla nga xam ni daf koy soxla lu bëri mu ko fay faral di jëlee noonu it ci la amee ab boutique ak yeneen ak Euh, ay yaxantu yu ndaw la yoo xam ne daara ji comme daara moom euh, mensualité bi dafa dafa taalibe lool ndax 18000 moom ku koy laaj ku koy laaj am ndonga par weer loolu wax dëgg yàlla <laughs> loolu dafa <laughs> daa tamit loolu daal wallaay jàpp na lool loolu daanaka téeméeri dërëm la par bés rek waaw kay xam nga ni kon loolu boo ci naroon a tënku ngir dund weer bi dina xaw a jafe moo tax daara ji te sëñ bi moom dafa gëm social mhm. moom léppam social la ndax kokki ba nga xam ne fa la génnee wallaay wallaay looloo tax sëriñam looloo fa am wallaay wallaay non seulement looloo fa am mais sëriñam dafa am benn baat boo xam ni moom daf koo daf koo gëm lool mhm. mooy li mu daan wax ni su ma sañoon mhm. damay am am ndonga muy hmm. jàng si ma koy fay. ma koy fay wallaay di fay ay waajuram wallaay sëñ Ahmed Saxir loolu la daan ba bu wattoo mu dem ma dem lu ñu lu dul yowmal qiyaam mu ni ku gëm loolu kon kooku lépp loo xam ni euh, li muy laaj du doon pour li muy njëmee si boppam mais loo xam ne dina tax liggéey bi jagal mënta ñàkk lu mënta ñàkk li liggéey bi rek lay laaj looloo tax euh, loolu la ñuy laaj mala yi sax ku leen yeew ci bërëb di leen xont wallaay loolu waa kay doon daal loolu mooy njëg gi muy laaj mais li des nag ngir mu daara ji mën a dund ay hmm. projet mu mën koo taxawal hmm. Mm. la plupart daf koy jëlee ci yaxantu yi ndaw yooyu nga xam ne daara ji daf koy faral di lew na lu jaadu la lu jaadu la te noonu la lislaam mës di doxee mbokk yi ñu fàttaliku nag ne lislaam yilif na àddina bi lu mat euh, lu jege juróom ñetti téeméeri at 1400 mhm. ba 1492 sallallahu alayhi wa sallam fi jóge 632 mhm. waaye ba 1492 daanaka l'islam l'islam lu ëpp ci àddina bi moo ko yilif loolu nag xam ngeen ni yi yii ñu jàpp ne ci tubaab yi lañ ko jëlee yëpp lislaam civilisation moderne bii ak euh, yooyu yëpp l'islam buur jullit moom moo ko tëraloon boo demoon Alhambra fi ñu toll nii ca Espagne ba gis kër buur jullit palais royal ba nam mel ba tey jamono dabagu ko kon jullit yi nañu xamaat seen bopp bu baax a baax taxawaat bu baax ci daara ak nitu daara ndax nitu daara résultat bu am fii ci réew mi rek bu positif nitu daara am na ci sëñ Ablaye waxtu wi de dem nu léegi yan kàddu ngeen di tàggatoo eh. Hmm. Hmm. mooy ñi ñi ngi dénk waajur yi maanaam parents daara am saxiloo. Hmm. boo defee samedi suba. waaw léegi ñu ñu jël si xale yi comme ni nga ko bëggee ni nga ko sàkkoo itam. waaw bu dee dimanche benn nit nit rek na ñëw ndax moytu ndaje mbooloo yu bari waaw. bu dee samedi bi waa Dakar bu dee dimanche. Eh, nit ñi ci région yi. beneen bi des moom mooy ni ñi ngi ñaan mmh. bu xale yi ñëwee. Mmh. nañ leen euh, euh, yafal sa yar leen. Mmh. ñu xam ni itam. bañ a xajamal li daara ji jot a def ci ñoom loolu mooy nañ leen yafal sa yar leen. yafal gi mooy nañ leen toppatoo. bu baax parce que jàng dafa metti wallaay wallaay ah, jàng dafa metti sa ñoom wax dëgg yàlla ay jàmbaar dana am léegi ay parents yoo xam ni seen doom day mokkal ñu ni nan ko fi tee waa jàngal xam-xam wala yooyu yooyu dana fay faral di am. maanaam ñu toog si daara ji daal waaw ñu waaw. waaw ba am na fa. am na ñoo xam ne wattu nañu waaye dañoo continuer nag. waaw bari na fa bari na fa dugg ci majalis bi. mooy tafsir Banda Ndiaye mooy tafsir ah, moom programme boobu tafsir Banda Ndiaye nga foofu daal sama doomu bàyyi moom. waaw waaye nag naka jekk nag. daa <laughs> école bi jege xaw naa jege 400 personnes. macha allah ci daara ji dañuy wax macha allah macha allah macha allah. bu ko defee léegi ñi leen ñaan bu ñu ñëwee. Hmm. ñu toppatoo leen. Hmm. toppatoo leen war nañu def toog di di jàngal Quran. Mhm. loolu du réer. waaye nag ànd ak loolu lépp bu leen bàyyi su li leen neex. Mhm. bu ñëw rek jàpp ni mhm. kii jàngi naar daara Quran léegi wàlli yu la. wala sama doom mokkal na ren wàlli yu la xale moom. lu fekk ñu ngi koy yar moom wallaay wallaay moom moom moom weesagul weesagul lu am solo weesagul yàq léegi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax a di xam fu ñuy dugg xam fu ñuy dem di gëstu seeni mbir bañ a bàyyi dara mu dem waaw baña bàyyi dara mu dem di lu njutu waaw loo gis loo xamul nga woo wax. macha allah bu defee léegi yar booba yàlla mën naa def lan defoon si moom mu continuer dëgg la dëgg waaye bu leen bàyyee rek. ay jamono ni mu tëddee nii ren. te taxawu leen ci ñuy jóg di nafar itam. ak ah, ñuy nafar. juste loolu justement ñuy nafar. Mhm. parce que loolu dinañu yi. Mhm. bu ñu ñëwee fi ñu yemoon ak ñoom foofu la ñu commencé. yenn saa xale bu fekkee ne nafarul. Mhm. rawatina feetu ren gi nga xamante ni dina dem ñaari weer ak lu teg parce que xale yi. bu demee suba ñi ngi war a ñëw euh, le 3. le 3 incha allah ak le 4 euh, octobre. octobre incha allah boobu dañ ciy profité waale xale yi war a def examen. ñoom dañuy dem. Mm-hmm. bu suba gannaaw suba dañuy dem. Mm-hmm. waaye le 9 août. Mm-hmm. ñoom dañoo war a ñëwaat. si daara yi pour. préparer examen yi tax waaw. waaw ah, loolu itam ñu bàyyi sa baax a baax. jërëjëf naa foofu laay daanele rek. jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum sëñ Alaaji na nañu jël tuuti sax ci. waaw moom de programme mu Alaaji Makumba Anne. est-ce moom ñëw léegi ak Sira yan kàddu ngay tàggatoo waaw kàddu ji tàggatoo mooy dellu gërëm la bu baax a baax. dëgg yàlla day rafetlu taxawaay bi. ndax sagu diine nga. alhamdulilah comme ni ko ni ko ñëpp xamee rek. dëgg yàlla fépp foo xam ne lu baax nga fay yëngatu moom. Mm-hmm. boo boo xoolee bu baax di nga fa gis Alaaji Baye Serigne Jiile. jërëjëf euh, loolu moom ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax a baax. di jaar fii nga xam ne fa la ñu mag ji jaar. Mm-hmm. muy euh, dénkaat bu baax waajur yi mm-hmm. ndongo yi ndax dañ koo joxoon daara ji am lu ñu bëggoon ci ñoom mhm. daara ji am lu mu jéem mhm. loolu nag pour loolu sax il faut bu ñu ñëwee ñu am harmonie. Mhm. ndax dañuy wax ni yar moom day faral di am harmonie. Mhm. li waajur bi di bëgg loolu la sëriñ bi di bëgg. Mhm. loolu la société bi di bëgg. mais su fekkee sëriñ bi day def lii kee ñëw def def safaan ba su boobaa yar dootul mën a tee am. fokk di gas fokk di suul kàmb moom moom kàmb mën a am. léegi lii tax kàmb mën a am. mooy ñëpp bokk même objectif bi daara ji am na lu mu bëggoon. am na lu mu doon jéem waajur bi bu ñëwee no bu ndongali ñëwee ci kër ga waajur bi na jéemaat la même chose. Euh, société bi jàppale ko ci lool loolooy tax ñu mun a am ay élite ci côté yëpp ci côté jikko surtout ñu ngi dellu di gërëmaat bu baax tey jégal bu baax a baax su kàddu yi su fekk am na lu fi juum ñu xam ni ñi ñi yónni ñoo gàttañ la waaye sëñ ba moom gàttañ luwul benn yoon ci kaddu yi mu yóbbante woon macha allah dellu di gërëmaat ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, Seydi El Hadji Malick jërëjëf euh, sëñ waaye jërëjëf itam suñu doom baay boobu nga xam ne moom la yàlla defal tawféex mu yor daara ji foofu royee ca daara ja nga xam ni sëñ Ahmad Saxir Lo nga xam ni dundam yëpp ci alxuraanul karim la fa def yàlla na sunu borom dolli ko tawféex ca barzaqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, ñii fi nekk itam dese liggéey bi. sëñ Maxtaar Naar. Euh, sëñ Fallou Lo ak mbooleem ñiy jàppale waa Kokki yëpp. Kokki moom li mu def ci ay résultat kenn xamul na mu toll. te loolu itam yàlla na ko turandoowam bi itam. mu ci lu bëree bare muy daara sëñ Ahmad Saxil loolu yi nga xam ne moo nekk ci buun santaat bu baax gërëmaat bu baax mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan rawatina suñu kilifa diine yi ni nga ko doon waxee sànq rek ziaraat bu baax euh, sañ Maodo si da baax ñaan suñu borom dolli koy tawféex dolli ko wér yàggal ko fi lool mu ànd ak mucc ziare bu baax euh, njabootu Sidi El Hadj Malick yëpp ni ko doon waxee ziar euh, ki nga xam ni mooy sëñ El Hadj Ibrahima Kunta borom Touba Ndiassane ziar ko bu baax a baax waaye dellu daaru salaam gi nga xam ni ajuma bi ñu jógee fii fa lañ demoon. Mhm. ngir doon dundalaat ñibbisik Cheikhul Khadim. Euh, mhm. en 1902. te maam Cheikh Anta ganale woon ko ñu ngi ziaraat bu baax xalifa ba sëñ Mor Fati bu baax sëñ Abdoul Khadir xalifa sëñ Modou Mamoun. Ah waaye sëñ Galas euh, ak ay magam sëñ Galas mu sëñ Modou Mamoun euh, maamun euh, sëñ garas mu sëñ Modou Loxey sëñ maamun magam ba ci maam Cheikh Anta ñoom ñëpp waa Daaru Salaam yëpp ñoom sëñ Babacar ak ñëpp ziar nañ leen ndokkeel at leen bu baax a baax ziare bu baax ndokkeel ñaanal bu baax itam suñu jigéen suñu xarit bi suñu lépp soxna Muminatu Kabe bu ji baaba Babacar Kabe Njuga ak boroom këram euh, ki nga xam ne mooy sëñ laay Tage waaye sëñ laay jaa ci taxawaayam ci alxuraan mm. seni ko ak mboolem waa fédération bi sëñ Moussa Lo nekk ca ba ñoom ñëpp itam tey jii wóor na ma ni gis nañu seen bopp ci émission bii ndax lii rek moo leen ñor kon ñu ngi leen di ndokkeelaat bu baax ñoomi di leen ziar Cheikh Mbacke Sakho ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax a baax euh, sëñ Makhtar Diouf borom wakaanaa xan alay naa nasul muminin ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax a baax sëñ Amadou Diagne ak euh, mboolem euh, mbokk yi xalit yeeg kóllëre yëpp mënuñu tudd ñëpp te alaaji Makumba ñëw na ñu ngi santaat bu baax di leen gërëm zidne yaa fata kulla yow